alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem su loolu wéyee ñu xam ne noo ngi nekk ci jamono joo xam ne fitna bari na ndëngte it bari na di dox jaar ci yoon wu jub ba mu yàgg nga wàññiku it bari na yooye nag yoo koy waral di doon yoo xam ne yu bari la muy ay fitna kon nan nekk nan ci jamono joo xam ne li ñu sa baat muy ak dëgër waxtu wuñ ko mënoon di aajowoo ci jamono ji nu nekk ci lañ koy gën a aajowoo ndax jamono fitna la te xolub doomu aadama waññiku daf koo yomb moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne xolub doomu aadama ni muy gaaw waññikoo wàññikoo nee na moog ni cin di baxe ñooyam waxaat ci beneen xadis mu ne xol ci boppam dañ koo tudde xol ndax li muy wëlbatiku xam nga ne xalaba ci kalaam ak arab mooy wëlbatiku na nee na xol ci loolu lañ ko jëlee mu ne kon xolub doomu aadama dafa mel ne aw dunq mu nekkoon ci carub garab nga bàyyi ko fa boo dikkee fekk ngelaw la yóbbu ko wala mu wëlbati ko na ko bàyyi woon duudoo ko na fekk kooku day wane ne kon xol bi laaj nañu jéem a góorgóorlu bu baax a baax ndax mu mën a sax sunu borom tabaraka wa taala nag diggée na ne xol bi mën naa sax ci kaw gëm yàlla ak dëgërloo ko ak góor góorlu ci diineem ci moo tax mu ne yàlla mooy saxal ñi ko gëm fii fi àdduna ak ëllëg ca àllaaxira bu ñu leen di laaj ci seen bàmmeel yàlla na sunu borom defal loolu imaam muslim génne na ci benn xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne xolu doomu aadama dafa nekk ci diggante ñaari baaraami sunu borom tabaraka wa taala nee na nu mu ko wëlbatee rek mu wëlbatikoo noona kon jaam bi aajo woon lool jéem a góorlu ci luy tax xolam yi sax jéem a xam kañ la war a gën a dëgër kañ la war a gën a sax ca lam nekkoon waaye it yan mooy la war a gën a jëfandikoo ba mën a sax ca lam nekkoon bokk na ci bërëb yi nga xam ne dana tax nit ki gën a war a góor góorgóorlu ci sax ca lam nekkoon moo di su fitna amee moo tax ci xadiisa xudayfa yonente bi alayhi salaatu salaam daf ne nee na xol yi fitna day ñëw di romb xolu doomu aadama ñi ko ciy gaaral di ko teg ci kawam di ko ci tëral kom ni aw yaram di tëdd ci ak basan nee na ba basan googem tëddoon jeexiital ci yaram ba boo ko xoolee mu doon ay rëdd nee na xol bi fitna ja mën naa ñëw di ca taq di ca taq ba mu yàgg boo xoolee xol ba na def cay taq noonee basan nga di marqué ci yaram wa waaye nag nee na bépp xol boo xam ne fit na dikk na mu nangu ko jël ko accepté ko dañuy tomb ci biir xol boobee ab tomb bu ñuul bépp xol boo xam ne fit fitna ñëw na nag mu delloo ko ànd ak dalam nekk ci jàmm nee na dañuy tomb ci xol boobee tomb bu weex su continuer nag xol boobee ñu doon tomb tomb bu ñuul ak bañ doon tomb tomb bu weex nee na day mujj dem ba ñaari xol rek mooy am ci kaw suuf benn bi nee na xol bu weex tàll bu mel ni li ñu tudde doju siraat mooy doju woyof yi nga xam ne mooy doju marbre kenn mënu koo tilimal te it dara mënu caa dugg nee na noonu lay mujj mel fit na duutu ko mën a lor mukk li feeg asamaan ak suuf a ngi fi nee na beneen xol ba nag day mujj ñuul kukk ndax tomb yu ñuul yooye di accepté fitna fitna ci jëm mu nangu ko ànd ak moom dund ko nee na day mujj xol ba ñuul kukk ba noppi mel ne ab kaas boo xam ne dañ koo këpp ab kaas boo ko këppee doo ci mën a defati dara moo tax mu ne laa yaarifu ma maarufan wala mun munkaran su ko defee xol ba mel noonu nga xam ne nuróo naa kaas bu ñu wëlbatiku ba dëpp ko nee na lu baax duutu xam ne lu baax la lu bon it xam ne lu baax la lu la kon borom day daal di fëtal rek xamatut fu jëm yàlla na yàlla musal ci loolu nee na xamatul dara dara daal lu dul bànneexu bakkanam fitna nag buñ koy wax fitna yu bari la fitna yi bëgg àdduna ak daraja ma nga fa te sunu borom tabaraka wa taala wattandiku loo nangu ko lool ci alxuraan muy bëgg ak yëkkatiku bëgg daraja bëgg ku la teg fenn fi bëgg alal ci bëggin woo xam ne charia santaane wu ko yooyu yëpp borom bi tabaraka wa taala wattuloo ko ci ay aay yu bare bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nga ñëw fekk ñaari till yoo xam ne dañoo xiif nga sànni leen ci biir ak jur maanaam ay xaraki béy nee na nañu koy yàqe yàq nga ñuy def ci biir jur googee yàq gi ak xër ci àdduna ak alal di def ci diine nit ki moo gën a ñaaw moo gën a tar yàq googee nga xam ne tilli ga dana ko yàq ca biir jur ga te fekk tilli gu xiif la kon bokk na ci fitna yi ba tey fitna yi soxna yi ak doom yi ndax yooyu su mbir yi teguwut ci yoon wa ak nam ko war a tege benn mu doon ab jaamukaayu yàlla boo xam ne nit ka da leen di jëfandikoo ñoom ci wàllu jaamu yàlla ci yarbaag def la ko war seen digganteeg ñoom mu soppi ak jaamu yàlla su loola amul mu soppi ak mooy yàlla doon fitna ci moom moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne seeni alal ak seeni doom xam leen ne fitna la maanaam ab nattu la ci yéen ba xam da ngeen di jubal wala da ngeen di dëngal waxaat ne xam leen ne am na ci seeni doom ak seeni soxna ñoo xam ne ay noon lañ ci yéen na ngeen leen wattandiku mooy wattandiku ga mooy ñooña bu fekkee ne da nga leen jël yaroo leen tegoo leen ci siraatul mustaqim bu ëllëgee danañ loru loruwaale la ndax defoo la doon sa responsabilité faxdaruhum nag mooy la la war sa diggante ñoom def ko ñu bari nag buñ ne li war sa diggante njaboot da ngay defe ne boo leen xontee jox leen dund bi rek loolu doy na waaye yar ba mooy la gën a rëy jubbanti ga ak tegga ci siraatul mustaqim mooy responsabilité ba gën a rëy moo tax suñu borom tabaraka wa taala daf ne qu anfusakum wa ahlikum naara nageen ngeen fegal seen bopp ak seen i njaboot sawara ni nga leen di fegal sawara mooy teg leen ci kaw diine yàlla ji ñu dund ko loolu kooku la responsabilité bu mag ba nekk bokk na ci yooyu nga xam ne bu ko nit ki defee dafay bu teewee dafa war a gën a dëgër ci diine moo di dëgër ci li ñuy tudde wàllu manhaj muy sax ci yoon wi nga nekk muy siraatul mustaqim yoon wi nga xam ne ahlu sunna wal jamaa ci lañuy ñu jaar muy dundu lislaam yoo xam ne ñi ngi ko jële ci téere bi yàlla bi jële ko ci li yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon dund nga sax ci loolu dëgër ci sa pas pas di dox sa diggante ak sa boroom nga tabax ko ci say jaamu yàlla yi ngay def mu julli yaag koor yaag ya ko nuru nga jële ko ci alquran ak sunna sa jikkoo ak sa mbaax ak sa jëflante ak doomu aadama yi nga jële ko ci alquran ak sunna yoon woowu mooy yoon wi nga xam ne jullit bi ci la war a jaar moo tax sunu borom tabaraka wa taala mi ngi tagg aw gaay mu ne day am na ci góor yi yàlla yi ñoo xam ne lañ wëlërante woon ak seen boroom dañ koo téye bu dëgër ñooña nag am na ci ñu dem wuy ji seen borom waaye mu ne ba tey am na ñu fi des te soppiwuñ dara ca la nga xam ne moom lañ fasante woon ak seen borom ci kóllëre muy kóllëre tawxiid ak kóllëre jàpp ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci fi nit ki war a gën a dëgëre it mooy su doxee ba fitna tooñaange dal ci kawam ndax loolu dana di am te ba yàgg ay tooñ ak i lor jóge ci koo xam ne moo la ëpp doole ëpp la mën-mën ëpp ay pexe dal ci sa boobaa laaj na dëgër laaj na sabaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na lam dund moog saxaabaam yi ci màkka ak lañ leen fa won te dëgganul woon ci ñoom sax ñuy fay ci jamono jooja ndax amuñu woon kàttan ga sunu borom tabaraka wa taala joxu leen woon ndigal ci ne lor gii ñu leen di lor fayu leen moo tax sañu ñu woon a fayu léeg dañ daan dem ba lenn ci yi di bëgg a saalit xabaab ibnul arat nee na benn bés dañoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa kaaba ga mu sownu ñu ne ko waaw yow yonente bi yàlla bi xanaa munoo ñaan yàlla mu dimbali nu nun jullit yu néew yi ak lor yu metti yi dal suñ ko jóge ci yéefar yi xanaa mënoo ñaan yàlla mu wàcce ndimmal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen xam leen ne xeet ya leen jiitu woon day daana am nit ñoo xam ne seen pas-pas dana tax ñu jàpp leen gas ay pax dugal leen ca ba seen bopp rek di feeñ ñu indi am riis mi nga xam ne moom la ministre bi di yor nee nañu ci riis seen bopp yi ba mu xar nekk ñaari gaal te nee na loola munta tax ñu dellu gannaaw ci seen diine nee na daanañ jël ci ñi di lor daanañ jël ay jartu yoo xam ne jartu weñ la mooy peñe def ko ci taal bi ba mu xonq ñu dugal ko ci seen bopp yi ak seen yaram yi ba muy laal yax ya di laal sadiid ya te nee na loola taxul ñu dellu gannaaw ci seen diine kon foofee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la taxoon mu nangu lor ju metti di dal ci kaw jullit yi ñi di ko muñ boole ko di def la leen seen borom digal moo di dañ leen doon tabax te woon ci ñoom bañ leen tabaxee ba noppi ci ñoom nag ca lañ war a mën a am kàttanu jaamaarloog ku dul ñoom ci xadisu abu said alxudri radiallahu anhu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul benn jaam boo xam ne yàlla may na ko ay may yu gën a baax wala mu gën a yaatu nangoo muñ nangoo muñ lor joo xam ne dafa dal ci sa kaw waxoon na ne da ngeen dajeeg sama gannaaw ay ngir yoo xam ne yu tiis la sama ci seen kaw mu ne fas biro na ngeen muñ ba ba nuy daje ba ba nuy daje ajjana maam ba nuy daje fa déeg ba mooy déegu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ al alkawsar bokk na ci it moo di sax continuer ca la nga nekkoon ci dëgër ci pas-pas ba keroog ngay wujj sa borom rawatina jamono yi nit ki nekkee ci sukuraat foofu iblis dana ko feeñu di ko won yoo xam ne rawatina su fekkee ku baax la woon di ko jéem a defal ay pexe ndax bëgg su demee ba ci mujjug dundam rek mu yàqule foofa moo tax borom bi tabaraka wa taala ne jamono yooyu ki nga xam ne dafa baaxoon jaar ci listiqaama muy jub nee na su demee ba iblis di ko yàqal malaayika yi dañuy feeñ suñ feeñee melokaan yu rafet yañ koy won ak kàddu yu baax yañ koy wax mooy tax du geesu iblis bu ko déglu dañ naan ko moo tax borom bi nee na inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu mooy ñi gëm yàlla ba noppi sax ci siraatul mustaqim nee na malaayika yi dañuy wàcc suñ tolloo ci faatu di leen wax ne allah taxaafu bu leen ragal ci fi ngeen jëm ndax àjjana la wala taxzanu bu leen tiit ci ñi ngeen bàyyi gannaaw muy seenu njaboot ndax yàlla leen di aar wa abshiru bi janna na ngeen bég nag ci àjjana ji nga xam ne moom la leen seen borom digtaloon kooku moo di yusabitu llahu alladina amanu bil qawli sabit soo xamee ne ñëw na ba foofa nag iblis di ko feeñu di ko jéem a won yoo xam ne yuy weddiloo nit ki yàlla la wala mu yàq pas-pasam su boobaa malaayika yi feeñu koog seen melokaan yu rafet yaak seen kàddu yu tedd yooyu mooy tax mu mucc ci pexem iblis su fekkee melul woon noonu nag wal iyaasu billahi bari na ñoo xam ne dañuy dem ba ci mujj ga ñu door a yàqu ne yàlla na ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bare bare bare ci julleeg bu sëlmalee ci julli lépp dafay muslu ci waxtu wu dee dafay muslu ci it fitna joo ne fitna yi dund la amaa nag moyens xam ne moom la kiy jëfandikoo ngir mën a sax a dëgër am na ay jumtuwaay yoo xam ne su ko jëfandikoo borom bi tabaraka wa taala dana ko baaxe mu sax ci diini ji bi ci njëkk mooy bàyyi xel sa borom akuk màggaayam xam ne lu bare bare bari ci mi ngi luy dal nit ñi ak fér fér yéeg ragal yëpp ñàkk a xam sunu borom tabaraka wa mooy kan moo ko waral sunu borom bi nga xam ne dara ump ko ni mu ko waxee ci alquran nee na amut lenn loo xam ne mi ngi ci jéeri ji wala mu nekk ci géej ga wala am wenn xobu garab ci kaw suuf woo xam ne dana jekki ba guddi lu lëndam nga lëndam lëndam xob woowee tàbbi nee na lu dul sunu borom tabaraka wa taala ma xam loola amul nee na wenn fet woo xam ne mi ngi ci biir suuf ca lëndëm nga moo xam wu wow la moo xam wu tooy la nee na lu dul sunu borom tabaraka wa taala xam na ko ba bind ko fi biir kon kooka su fekkee seet nga sa borom boobu xam fa mu toll moom ci màggaay akub tolluwaay ak fi nga toll yow doomu aadama ci doyet yi nga xam ne fi nga taxaw jublu nii rek la nekk sa gannaaw xam loo lu mu doon kon da nga xam ne da am borom bu mag boo xam ne lépp dafa war a tuuti fi kanamam moo tax mu ne wa ma qadarullah xaqa qadri nee na sunu borom tabaraka wa taala daraja ji nga xam ne moom la am ak tolluwaay ba dimension ba doomu aadama yi nee na joxuñu ko ko nee na fàttalikul ne suuf suuf si ñu xam bu ëllëgee yowmal qiyaam buy taxaw ci benn loxoom la koy ŋàbbe suuf ak li ci biiram kooku place bañ ko war a teg wa samawaatu matwiyaatun bi yamini asamaan yi itam nekk noonu boole ko ak moo tax mu teg ci ne subhanallah subhanahu wa taala amma yushrikuun nee na kooku su ko nit ñi xamoon fa mu nekk ci sellaay aku màggaay dana soreek nit di ko bokkaaleeg dara wala kenn kon nit ki su teewloo màggaayu sunu borom tabaraka wa taala lépp dana doy di ci kanamam ñaareel ba moo di bari nag looy ñaan ak di dellu ci sa boroom di ko ñaan mu saxal la ci diine ji ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni nu ko ummu salama nettalee ne li ëpp ci ñaanu yonente bi sallallahu alayhi wa ci ñaanuk yonente bi alayhi salatu salaam mooy daf daan wax yow mii wëlbati xol yi yow yàlla saxalal sama xol bi ci sa diine ji loolu la daan ñaan loolu lu waar la ci yonente bi yàlla ummu salama nee na ma ne ko ah yow yonente bi yàlla bi li ngay ñaan lii de bari na di wax ne yàlla yàlla na nga saxal sama xol bi ci diini ji yonente bi alayhi salaatu wasalaam amul jenn doomu aadama lu dul xolam bi ngi nekk ci diggante ñaari baaraami sunu borom tabaraka wa taala ku ko soob mu jubal la ku ko soob itam nga dëng moo tax Muaz ibn Jabal bi mu indee déggee xadis boobu mu daal di jàng ne loolu de mooy li sunu borom wax ne rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana yàlla yàlla boo jengal suñuy xol gannaaw boo xamee ne gindi nga nu kon ñaan googu gu mat di ñaan la foo toll rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana ci beneen xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngëm yàlla ci boppam day nekk ci xol ba mu yàgg mu dem ba mu yàgg mu ràpp ràpp na ni sole mbubbam ba mu yàgg mu dem ba mu yàgg mu màggat nee na ngëm yàlla day dem ci xol ba mu yàgg mu màggat moo tax mu ne fasalu llaha an yujaddida al imaana fi qulubikum ñaan leen yàlla mu di leen yeesalaatal seen ngëm yàlla ci seeni xol kon ngëm gi soo demee ba yëg ne mi ngi feebal yaa ngi bëgg a doyat yi yaa ngi gis ne li nga doon def ci jaamu yàlla manqué na mënatoo ko léegi wala yaa ngi def ay mooy yàlla yoo xam ne daa nga ko wattandiku moo xam mooy yàlla yi wax la wala mooy yàlla looy xool la wala looy déglu la nga xam ne kon ngëm yàlla ga mu tàmbalee ràpp wéetal ak sa julli say ñaari rakka walla ñett wala loo man tàllal say loxo sa boroom ñaan ko mu yeesalaat ngëm googu ci sa xol loolu soo ko defee da nga gis kéemaanug sunu borom tabaraka wa taala ci na ngay delluwaate jaaraat ci njub bàyyiwaat caaxaan ak càggante bokk na ci yooyu nga xam ne nit ki war na ci sax fu mu toll fu nekkit moo di jàpp ci alquran ak sunna ndax kat loolu dong dong dong mooy muccukaay ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na taraktu fiikum bàyyi naa leen ak maa in tamassaktum bihi lan tadillu baadi kitaab allahi wa sunnati bàyyi naa leen ak loo xam ne li feeg yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer nee na loolu mooy kitaab allahi téere bi yàlla bi wa sunnati ak sama sunna kon alquran ak sunna mooy ñaar yi mucc nga xam ne ku ci jàpp mucc képp koo xam ne bàyyi na ko itam da ngay réer nag bokk na ci yooyu mooy yi nga xam ne nit ki dana ko jëfandikoo ndax mu mën a dëgër mooy di rek leen seet sa bopp jëfandikoo bu baax a baax a baax a baax li ñuy wax muxaasaba muy contrôler sa bopp bu baax a baax di xool li weesu la nga ca def la ca baax la ca baaxut ak ya nga war a bàyyeeg njuumte ya nga def ak yépp nga xamal ko sa bopp ngir nga mën koo bàyyi moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne yéen ñi ragal yàlla yéen yi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te kenn ku ne di xool li mu jël def ko ci diine ji ngir mu war ko def ko ci dundam ngir mu war ci jot ëllëg mu xool ba xam loolu ndax lu rafet la wala lu ñaaw la fa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara ku jëf lu baax da nga koy gis bu ëllëgee ku jëf lu bon itam bu ëllëgee da nga koy mu ne kon nit ki fu mu toll ne nay xool li mu def tam jëm ëllëg lan moo ca baax ak lu ca baaxul la ca baax mu jéem koo yokk la ca baaxul mu jéem koo tuub moo tax Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala daf daan wax ne na ngeen réglenteeg seen bopp bala ñoo réglenteeg yéen ndax ëllëg kat kenn ku ne dañ lay xisaab laaj la li nga defoon lu mu doon moo tax kilifa ku mag ñu naan ko Maymun ibn Mahran daf doon wax ne jaamu bi yàlla bi mënta nekk ku ragal yàlla mukk lu dul su fekkee ne ni muy réglenteeg boppam moo gën a tar ni muy réglenteeg ki nga xam ne dafa associé ak moom ci wàllu alal ki nga xam ne da ngeen yor ab société yéen ko bokk ni nga xam ne noon ngay xëre ci lu mu dugal fi béréb nga xam fu mu ko dugal ak lu tax mu dugal ko fa lii des ci alal ji lan moo tax mu des ci inventaire boobu ngeen di def toog di gëstu ba xam alal ji nu mu doxee audit boobu yi ñuy def nañ cay sonne nee na ki xam dëgg dëgg dëgg boroomam lan la yemoo ci moom ni muy audité boppam di réglente digganteem ak bopp mooy gën a tar nam koy defante digganteem ak kim si xal alal kon loolu lu mat a bàyyi xel la bokk na ci it yi nga xam ne danañ dëgëral nit ki doon ay moyen mooy di fàttaliku jaar jaari yonent yàlla yu fi jaaroon kenn ku ci ne jaar nga ci ay natt yoo xam ne benn boo ci jël bu nekk dana doon loo xam ne luy dëgëral nit ki la koo fàttali ba Ibrahima alayhi salaam akub coonaam ba àgg ci ñu sànni ko ci biir sawara ndax bëgg mu faatu taal sawara woo xam ne jéggi na dayo dugal ko ci mbaq sànni ko mu tàbbi ca biir sawara wa pas-pasam akub dëgëram akub delloom ci sunu borom tabaraka wa moo tax mu mucc moo tax Abdullah ibn Abbas daf ne Ibrahima bañ ko defee ci la ñu tudde man janiix ba di ko sànni kàddu gam mujje wax xasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy na ma te moom day ku ko doyloo da ko fekk mu mat sëkk koo xam ne ku ñuy wéeru ci moom la boo ñëwoon ci Muusa alayhi salaam jamono yi nga xamee ne dem na ba génn banu Israayil ak noon yaag ñépp àndandoo firawna aku nitam ñi di ko dàq moom mbooloom ña ko gëm ñu doon ñu tuuti ñu letoon ñu bari yoruñu yenn pexe lu dul seen ngëm yàlla googee ñu yor ñëw ba jàkkaarloo géej ga xam ne si nañ ci géej gi te gisaguñ menn pexe ñu geesu gis noon bi ci seen gannaaw ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Muusa dañoo tàmbali di saalit ñu naan inna la mudrakuun nun day peeg nañ géej gaa ngi ci suñ kanam noon yaa ngi ci suñ gannaaw waaye Muusa ak yaqiinam ak pas-pasam mu ne kallaa déedéet inna maa ya sama borom laa àndal kon ki ànd ak boromam foofu la yaqiinam ak pas-pasam ak dëgëram toll xam ngeen la ca xew gannaaw ba sunu borom tabaraka wa taala li diggante ba doon xat xat ubbi na benn solution boo xam ne bañ ci jaaree Moussa ak ñam àndal ñoo mucc na ak ñam àndal ñoo lab boo ko toppoon noonu amul benn yonente bu fi mas jaar bu dul am na fu mu jaar ak aw nitam koo xam ne suñu borom tabaraka wa taala da ko musal ci kaw ak dëgëram boo ñëwoon ba ci jabar yi nga xam ne ñoo àndoon ak na contre Moussa biñ ñëwee biñ ñëwee ba xam ne Moussa ab yonent la dañoo déclaré ne ñoom gëm nañ Moussa ànd nañoo moom la leen firaaw na wax mooy fa la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf jabar yi àndoon ak moom mu gis ñu gëm Moussa mu ne leen ah da ngeen gëm jabar bu mag bi danaa leen jàpp dagg seen loxo yi ak seen tànk yi mbugal mu mel noonu laa leen di def wala usallibannakum su ma leen ko defee ba noppi door leen a daaj nag ci garab ngeen nekk foofa fi judu'i naxli te it su boobaa da ngeen xam kan moo gën a par mbugal ñu ne ko nun day ngëm gii nu yor moo la gënal maanaam ngëm gi moo nu gënal yaag li nga àndal kon defal loo man ndax li nga man mooy dunduk àdduna gi nga mën a jeexal waaye dunduk àllëg moo mënoo ko dara kon ñooñu seen pas-pas foofu la àggoon kon lépp loo xam ne jullit bi mi ngi koy dund na jéem a góorgóorlu ba jaar ci a mustaqim su ci jaaree itam nag na dëgër maanaam lu koy delloo bu mu ko gis moo borom bi daf ne nit ñi nga xam ne dafa am ñeneen ñu ñëw ci ñoom ne leen inna naasa qad jama'u lakum nit ñi day tëral nañ leen ay pexe yow xam ne yéen fu geen mën a jaar ba wëtu du ngeen muñ du ngeen mën a mucc faxshawhum na ngeen leen wattandiku fa zaadahum imaana borom bi nee na loolu dolli leen gëm yalla wa qaaloo xasbuna allah wa ni'mal wakiil nee na ñu daal di wax ne nun lay sunu borom tabaraka wa taala doy nañu sëkk bokk na ci moyens yooyu ñuy jëfandikoo mooy tisarul amal maanaam mébét yu rëy yi nag yéene yu ëpp yi ci wàllu àdduna yaakaar ne nit ki mën naa dajale dajale ba moom àdduna ak li ci biiram loolu ci boppam dafa war a gàtt jullit bi dafa war a xam doyadi gi àdduna doyadi borom bi tabaraka wa taala ne waaw su ma leen sotti loon xéewal yi muy sotti ko rek ay at di dem te xam ne wóor na leen ne day jeex bu xasee jeex loolu yi ngeen yoroon ci ay xéewal te bàyyi ko fi su fekkee dara lu jëm ci sabilullahi nekku ci woon loolu alal yu bari yooyu lu mu leen di jëriñ ñeneen ay ñëw jël ko sa gannaaw amaana ñu caaxaane ko amaana ñu moye ko yàlla kon njariñ amul foofa moo tax borom bi tabaraka wa ci doye di adduna mi wax ne nit ñi buñ dundee luñ fi yàgg yàgg yàgg buñ dekkee ba jàkkaarloo kenn ku nekk liñ la digoon dangay jàpp ne yow daal fii li nga fi am sax matul matul waxtu day mel ni matul waxtu ndax gàttaay gu mu gàtt Tirmidi jële na ci Sahl ibn Sa'd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu fekkoon ne àdduna àdduna ak li ci biiram tollu na fa yàlla ne benn guuxum ndox guuxum ndox maanaam toll na ko yàlla ne benn laafu yoo adduna ak li ci biiram su toll woon ne laafu benn laaf boo xam ne laafu yoo la nee na su toll woon noonu kon ab yéefar yàlla du ko ci jox dara donte sax benn guuxum ndox la du ko ci jox ndax su boobaa du ko yeyoo waaye doye di gim doye ak ñàkk solo gim ñàkk solo moo tax yéefar yi mën nañ leen ci sottil sax bañ doyal parce que du dara comme tolluwul fa yàlla nen loolu nag faaw jullit bi xam ko ngir àdduna mën a doyadi fi moom diine dara du ko ko jaral xam ngeen ne dem nañ ba toll ci ay jamono yoo xam ne maa ngi jot ay xabaar ñuy wax ne fitna yu mujj yi nga xam ne ñoo am ci suñ gox bi am na ñoo xam ne mu ngi leen di yëngal ci anam goo xam ne àgg na ci ñenn ñi di ragal ñenn ñi wax seeni sikkim ñii di soppi seeni melokaan ngir ragal ñu xam leen te gisuñu benn fitna gisuñu lu ko nuru gisuñu lu ko jar ku mel noonu bu demoon ba gis na kon kooku kenn xamul fu mu jëm jullit bi diineem ci boppam war naa àgg ci moom foo xam ne ëpp na foofu doomu aadama mënu ko soppi dëgg la noonu li ñuy woote te mas koy woote bu ma nee nun li ma ci jublu mooy jàkka jii ba mu fi taxawee ba tey kon jubluwuma ci man waaye mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci jàkka ji moo di yar ndaw ñi jàngal leen xamal leen li war ci wàllu yar ak teggin ak njub ak jiima andi sécurité ak stabilité ci sunum réew ku fiy julli ku nekk wala nga fiy dox ku nekk it xam nga loolu waaye nag loolu firiwut na nit ki dafay ragal ba nga xam ne diineem daf koy bàyyi kon kiy dox di taxawal sécurité ci réew war naa xam ne yaar benn mooy kiy dox di bëgg a taal fitna kooku des koo war a yar des koo war a teg ci yoon waaye kooku ñu xàmmee ko koo xam ne dafay dund diineem kii dund diineem nag teg ko ci santaane yi nga xam ne mooy santaane alquran ak sunna kooku boo ko laalee laal nga laalaakee parce que mënuloo ko tax a bàyyi lim nekk kon loolu jaadu na ñépp xàmmee ko jullit bi na wattandiku fitna na wattandiku yàq na wattandiku lépp loo xam ne luy indi fitna la ci réew mi waaye nag na jàpp ci diineem bu dëgër ni ko ko sunu borom tabaraka wa taala sant ci alquran ak ci sunna kon noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jàpp ndalal loolu allahuma inna nasaluka ziyadatan fi ddin wa barakatan fi lcumr wa sixatan fi ljasad wa siatan fi risq wa tawbatan qabla almawt wa xifdan inda almawt wa magfiratan inda almawt wa afwan inda alxisab wa amanan min alazab wa nasiban min aljanna warzuqna an-nazara ila wajhika al-karim ya rabbal alamin allahumma arham mawtana wa mawta al-muslimin washfi mardana wa marda al-muslimin allahumma ighfir lil-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا اللهم قو إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين اللهم شتت سملهم allahuma shatit shamlahum wajcal daairata alayhim wa barik allahuma ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain